suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa ko xaar seen YouTube bu Ndiamé TV bësal bi nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. asalaamaaleykum yéen ñi baaxoo di seetaan seen télévision Ndiamé TV tey ñu ngi fii Mbour euh, comme ni ñu koy defee sax su nekk seen émission invité du jour. dalal si ku ñu wax euh, Mouhamed Ndiaye waaye balaa ñuy continuer euh, waxtaan bi di dugg si di xus dañuy nuyu maanaam képp koo xam ne mu ngi seetaan rawatina suñu xalif général euh, des Mourides Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla fan gudd ak wér di nuyu tamit xalifa Cheikh Moussa Cissé ñam boom daaru ak mbooleem njabootu Cheikh Moussa. waaye itam di nuyu képp koo xam ne maanaam mu ngi bàyyi xel seen télévision Ndiamé TV Baye Mouhamed Ndiaye dañ lay bàyyi nga nuyoo nuyu itam ñu lay seetaan. assalaamu asalaamualeykum mbokk mi mi ñu dalal. la ñu ngi lay siyaar ci lu ñu bokk. Mm-hmm. di la siyaar it ci ki ñu ko boole. Mm-hmm. xam ne fa lañ bokk tase. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee muy Cheikh Moussa Cissé. di wax na ñu ngi lay dalal jàmm bu wér. di siyaar ñu nit. suñu sang suñu wasila. suñu lépp. muy sang Cheikh Moussa Diagne. ñu koy sargal bu wér. di nuyu mbooleem ko bokk ak lu badrin ak li ko wër ngi jaajëfal wér euh, jërëjëf kilifa gi euh, ñu ngi lay fay bu baax waaye tam comme ni ko waxee euh, moo ko téléspectateur Ndiémé TV tey Baye Mouhamed Ndiaye la ñu dalal waaye Baye Mouhamed xam naa bëgg nañ sa sa présentation. waaw ñun ñun suñ judd Kaolack la. ñun lañ juddoo. fa lañ yaroo fa lañ màggee. Mm-hmm. fa lañ déggee it woote bi. waye lu jitu Dan dañ am misal ci ci ci rañan suñu mm-hmm. digantek sëñ fallu mm-hmm. mu won ñu cheikh moussa diagne loolu moñu bolé bañ ñu koy mm-hmm. won nak fekk na ñuy gun. bobu bobu dajé guñ ba ni ñu dajé jox suñu bop da and ak mom da and ak mom bobu janguñu waye lima la mëna wax ci lu gatt ci nga xam manam moy suñu jaar way moy ñu ngi ak mom 2005 ca Kaolack mu def ci ñun leeru laa ilaha illallah yebal ñu mbuur yaakaar naa boobu ba léegi ñu ngi fi de doxal waar wi waaw ñun daal ñooy taalibe bu xeebu ci yoon wi <laughs> waaw ñàkk solo lool te itam euh, ba nga si duggee ak ak ak ba nga si xus boobu léegi maanaam yan jaaruwaay nga si am yoo xam ne nii maanaam euh, vraiment Euh, soo ko ca jaaruwaay boobu boo ko tegtalee ak ak jaaruwaay góor yàlla yi maanaam dina dina nekk benn yoo xam ne di nga ko a euh, euh, xamal doomu aadama yu lay seetaan. comme ni ci yónnent yi la wax ci nitu yàlla jaaree rek parce que koo xam ne dafa juddu te judduwaay la wut wilaaya judduwaale wut ak xam-xam ndax loolu duñ ko judduwaale. ci jamono yi yónnent yi yi xut bu samaan yi may duñ ko judduwaale. juddu naturel lay doon. loo taxoon yonent bi ñu ne ko sabbiyan sabbiyan wala kaana nabiyan da juddu nekk liir ñu tette la yar la ñi la yar nag yàlla lim lay sédd ci cër dañ koy yéex a xam ndax dañ koy umpale surtout loo xam ne ñi la yar xamuñ ko xëy bés rek dégg yàlla dañ koy xam yàlla dañ koy gis te mbiru Seex Ibra nekk mbir mu lëndëm ci jamono ci jaam ñi leeru leen loolu amoon na ay xat-xat suñu digganteek ak suñuy mbokk waaye ñun biñ dikkee ci sëriñ bi it lim ñu wax mooy bu leen tooñ bu leen fayu bu leen xëccoo lii ma leen jox jàmm la jàmm la boo xam ne képp kum tàbbi ci moom daf ko war a defar biñ ko tàbbee ci ñun nag ñu yëg ko mbooleem li ñu doon weddeeg di ñu kii dañoo àndoon ak dal rek te ne lu tëw a xam yàggut comme laal naa dëgg te dëgg laa laal lu mu yàgg-yàgg dëgg dana leeral suñu diggante loolu de dox de dox ñu dem ba xam ne suma way jur wi maa ngi moom tàqalikoon nañ juróom-ñaari at yoo xam ne ci umpale mhm. waaye tey maa moom ñoo dëkk mhm. mu nangu baat bi comme ni ma ko nangoo mhm. loolu yëpp dund ak yaraki teggin moo ñu ko may suñu diggante ak moom waaw dëgg jooju mooy la parce que bu bu ne dëgg ni kon ñoom ba nga ñëwee am si loolu maanaam yow li nga yor ak ñoom lu ñu yor nekkul benn waaw suñu su su su suñu waxee loolu xëj na ñi ñàkk dégg waaye li li tax sëriñ tubaab bi mu ñëwee jamono ndax saa su ne dañuy wax ne li li mujj dana leeral li ci ginnaaw moo tax ñuy andi xisaak riwaaya ndax Serigne tubaab bi mu feeñ jamono fekkoon na julli di dox fekkoon na koor di dox fekkoon na lépp de dox te pourtant moom bi mu ñëwee daf ne fekk ma fi ku baax fekk ma koy def lu baax fekk naa islaam gàddaay aw sowu jant fépp mel ni làmbaay te boobu fekk na daaray maam Mor Anta Sali ay aafisu alxuraan lu tollook ay ñeenti téeméeri aafisu alxuraan nekkoon fa mu mel ni Serigne Touba dafa andi lu bees. Mhm. te loolu moo fi mës a nekk. Mhm. loolu la ñuy wax mu jaddit aji beesalkat bi. Mhm. ñun biñ demee ba leer gi tàbbi ci ñun. biñ dikkee suñu mbokk noonu la mel ci ñoom. dafa mel ni mbir mu bees ngir dafa ràpp ci ñoom ndax liñ foog ne moo de jaamu yàlla. foog ne moo de gëm yàlla foog ne moo de topp yàlla fekk lu loolu. ñun biñ dikkee nag di leen ko wax. munuñu déggoo ak ñoom. li tax mënuñu déggoo ak ñoom mooy ni góor yàlla yi doon wootee lislaam te déggoo wuñu seen i ñoñ déggoo nag seen i mbokk. Mhm. moo ñu daloon ak ñun suñu mbokk mhm. waaye lu mu yàgg-yàgg rek ñoom xam nañ ne ñun liñ leen wax mooy dëgg dëgg gi mooy mooy dëgg du ñaar dëgg du yàq du soppeeku mhm. te yàlla ñu wax ne laa ilaha illa kalimatul xaq mooy baatu dëgg olof di wax ne wax dëgg yàlla kon ku waxut yàlla waxoo dëgg parce que wax dëgg fa yàlla olofoo ko wax kon booba waxuñu yàlla biñ dikkee nag leen wax yàlla yàlla mi nga xam ne moo di dëgg mm-hmm. yàlla moomu lañ umpale woon ba weddi ñu mm-hmm. te yàllaay dëgg kenn du ah, dëgg pourtant ñu fekk nga leen ñoom ñuy wax laa ilaha illallah fekk ngeen ñuy julli ji dëgg la lan mooy différence bi waaw xam nga laa ilaha illa Serigne Touba daf ko wax bal hay suma an zikkiraha yaaba abat fa innahu yuxtalu doona kufran képp kuy tudd mbóot moom képp kuy tudd baatu laa ilaha la mm-hmm. te xamaluñ la sekkara ba mun a yuxtalu dagan nañu rendi la ndax kufran yéeféer nga te pourtant Serigne Touba fekkoon na baayam di tudd laa ilaha la mais laa ilaha illallah kese ci làmmiñ seg bu amul signature la. ça veut dire. bu amul signature kenn du dem ci banque ba ba jël ci xaalis. Mhm. waaye lay signé laa ilaha illallah ba mu dagan ci yow. Mhm. mooy da ngay dem xam mbóot ma. mbóot ma la Serigne Touba ne axfaaliya siran na laaw hubban wa laa ilaha la kon laa ilaha illallah dafa am mbóot. kon yow ba nga yeggee daal mbóot laa ilaha illallah la jox. ak saa yëkkun. ak ça jërëjëf defe naa ko euh, tontu boobu leer na waaye euh, am na euh, li ma la bëgg a laaj tam avant ñu jàll. Mhm. ba gis nañ maanaam kuréel gi boo mu sampoo ñu ngi ko tuddee kuréelu axlu badar. Mhm. lu tax ngeen tuddee kuréelu axlu badar. waaw axlu badrin mu ngi cosaanoo ca axlu badar bu njëkk ba ca yonti yàlla Muhammad mhm. muy benn fa la tur wa cosaanoo beneen ba ci desit ki nga xam ne tey ñun mooy suñu gidd. muy xaadimu rasul nga xam ne. ci moom la ñu wékku mhm. ndax seex Moussa daf ne woon Serigne Serigne Touba ma doy mhm. kon suñ wékkoo ci Cheikh Moussa mhm. kon Serigne tubaa dañ koy doyloo Serigne Touba lañ gis mu ne ci axlu badrin parce que nit ñi suñ waxee axlu badar rek dañuy fe defe ne ay malaaka lañ waaye déedéet axlu badrin ba yontu yàlla Muhammad de te lislaam ca Makka dañ ko dañ ko génnee Makka mu gàddaay dem Medina bi nga xamé ne dem na ba islam taxaw dafa deppat di wat makka di yëkkati hal baduraan lay na badur badar soo badur badurun leer la badurun leer la serigne touba ñëw dik né rafaqani ahlu badrin lislaama wa sakhsuhu fujara wa salam ahlu badar rek ñoy yëkëti l'islam gu and ak salam jàmm sang bi nak mo xamné kon dembu, yonti yalla Muhammad woote woon na lislaam àndoon mhm. nag waa ahlu badar mhm. kon suñ demee ba jamono am fu mu toll mhm. l'islam ràpp ci xol yi ràpp ci jikko yi ràpp ci dund yi kon faaw pays ahlu badar dikkaat ngir mën a xare waat lislaam ba tegaat ci jaam ñi loolu soo ko waxee day mel ni kon yéen dong yéen a yëkkati maanaam euh, leer googu ngay wax maanaam badar googu noonu xam-xam ba leer gi ndaxte yow fe waa ahlu badar ñoo comme ni ngeen ko waxee fekk na ñoo xam ne ñu ngi doxal leer gi di ko def si xolu jaam ñi waaw xam nga mbir moo gis dafay am concept logo dafa am ki nga xam ne mooy yonti yàlla Muhammad xam nga yàlla ba mu koy yónni waxu ko ne ko ahlu badar laa la yónni wax ko loolu daf ko wax ne ko arsalahu lil huddaa wa diinul xaq arsala dama la yónnee lil huddaa ci njub jox la njub wa diinul xaq ak diine goo xam ne xaq mooy dëgg mais li tax moom mu mu dem bañ ni ñi naan waa axlu badar mooy li ma la wax badar leer la leer googu nag muy leer badar nga xam ne ki nga xam ne ñun ci moom lañ wékku muy sang Cheikh Moussa Diagne nga xamné ñamé ko défar mhm. tuddé ko bopam seexal ko. mom mhm. bim démé ba bëgg samp liggéey bi di la ilaha illallah. Mhm. dafa top pays akhlu badar dembu xam seen way ci diiné xam seen njàmbaar. xam fiñ tollon diiné mu ne kon mom su diké tay lolu cër la diisoo la. mu diisoo ci pays yalla bi. ba pays yalla bi nangul ko ko ndax du la mbir mo xam da ngay jék jék rek ne man ku de sangam la bok xam nga tay ci saay ratan rek am na logo yoo xam ne kenn sañu koo jël dippee ko sa bopp parce que dafay am sécurité. Mhm. kon fay laaj la ci. Mhm. kon balaa muy wax ne moom axlu badar la woote. Mhm. la ko daganal axlu badar ba mu mën koo woote dafa dem lijjanti ji lan mooy axlu badar ba pare. xam leer baag cër baag maqama baag may ga ba pare soo ko woote. te la mu woote mat na ca moom li tax mat na ca moom mooy mooy yonti yàlla Muhammad defar na Aline Ousmane ak Ababacar te jàngalu leen. te defar na leen. parce que li andi Seydina Mohamed. moo andi Seydina Alin. moo andi Seydina Ousmane moo andi Seydina Ababacar. loolu Seydina mooy sang. Mhm. waaw léegi nag la nga xam ne moo sangoon yonti yàlla Mohamed. muy Seydina. Mhm. wàcc ci Alin sang ko. Mhm. wàcc ci Omar sang ko. wàcc ci Ousmane sang ko. loolu nga xam ne moo de sang bi. looloo dal ci sang Cheikh Moussa Diagne. mu yëg ne moom sang bi la. ndax leeru leeru yàlla képp kum mhm. tàbbi ci moom mhm. nga am ci ndigal comme ni ko Cheikh Moussa di defalee mhm. ci ñim seexal mu am ndigal googu nag jël nag leeru badurun googu nga xam ne moom tolluwaayam bi mu ko vérifié xam ne war naa mën a samp parce que benn kuréel googu lañ déggoon démb muy waa lu badar suñu ne waa axlu badar xel damit ci yonent yàlla Muhammad effectivement kon tey moom war na mën a dekkilaat ñooñu parce que ñooñu dañuy wax ne lislaam tey fi mu toll jàmbaar yooyu ñoo ko parce que yonent yàlla Muhammad xam ku ne xam na ne àndoon ak ñeent rek bari woon na waaw léegi lu tax ñu tudd ci ñeent. ah dellu naa la question bi. ñeent yooyu dañ nekkoon ay gaynde ci lislaam mhm. te seen tur tur bu ci ne am représentant ci yàlla. Mhm. moo tax bi Omar ñëwee ci diine. Mhm. Omar bi muy ñëw Omar la tudd. waaye xam nga bi mu ñëwee tuubaluñ ko ba pare ne ko tuddee nañ la neneen dañ ko bàyyi turu Omar. ah pourtant bu mu ñëwee bu mu ñëwee bu mu ñëwee fekk na benn sëram te te téye kaamil bi. waaw léegi nag léegi nag së léegi mu ne sër na ko jox na ko bi. dëgg la léegi sëy bañ di ko jox alxuraan bi mhm. kon tuub am na foofu waaw non tuub na waxuma tuubut de mhm. dama ne tuub na yow kon ban tuub ngay wax non dama ne tuub na waaye moom bi mu dikkee di ñëw ci diine mhm. xam nga senegal bu ñu lay tuubal dañuy soppi sa tur ndax dangay ngay dikk tudd pool mbaa nga tudd Jean mbaa nga tudd neneen du bokkut ak noonu ñu dindi tur wa tuddee la Mouhamad mbaa Aline mbaa Ousmane fa laay waxee mais dama ne la ñoom bi ñuy ñëw ci diine kenn ku ne tur wa nga andi ci diine tur woowu yonent bi soppiwu ko li tax soppiwu mooy sa tur bi ngay dikk dafa am lum tamponné si si diine ndax umru moo de dund àllin hmm? moo de xam-xam loolu laa bëgg wax dama la wax ne turu ñeent saxaaba yi bi ñuy dugg ci diine ñoom seen tur yee yonti bi soppiwu ko daf leen ko bàyyee ngir seen tur dafa am lu muy ne ci diine senegal nag suñ lay tuubal dañuy dindi sa tur te tur du tuub tur du tuubukaay hmm. déedéet kan mooy tuubukaay ak kasaa yakun a ko wax isaa jaa asu la dikkalee nasurulaay ndimbalu yàlla hmm. wal fatxu dañ la war a ubbi wara a ay te nga gis annaas nit ya duxuloon na fi ko yàlla dugal hmm. fii diini laay foofu mooy diine yàlla hmm. afwaa jan mbooloo fa nekk tey nag soo waxee fii diini lay diine yàlla rek ñu yaakaar ne mbooloo mu daje kenn ku ci ne euh, représenté diine ci meloom te loolu du mbooloo diine dañ boobu yàlla yàllaa ngi wax yontu yàlla ma met ci boppam mooy ki dikk moom dafa am ndimbalu yàlla parce que képp ku jóg dem ci diin islam kay am nga ndimbalu yàlla waaye nag pour nga am ci diina gi wala fatxu foog ñu ubbi la ubbi mënta ñàkk parce que yonent yàlla dañ ko ubbi innaa fatax naa la ka fatxan mubiinan kon ubbeeku googu yonent bi am képp ku dikkoon da la ca ubbi moo tax aay bi laaya boobu bi mu wàccee mu ne kon isaa ja a su dikkee na nasurulaay ndimbalu yàlla mm-hmm. wat fat ko dafa war a ànd ak ubbeeku mm-hmm. war a ay te yow da nga war a gis mm-hmm. annaasi sa nit ki yow parce que yow nit nga ya duxaloo na fi la yàlla dugal parce que nit ki ak fi ko yàlla dugal duñ benn ubbeeku googu mooy lan ak kasaay mooy fatxul mubin fatxul mubin mooy lan mooy la yàlla waxoon yontu yàlla Muhammad fexeel nga xam loo xamutoon ah, bismillah parce que buñ waxee yónnent bi mooy la yàlla joxoon yontu yàlla Muhammad mu de leer rasul laay loolu moom la ñuy wooye moom lañ tàmpo yónnent bi waaye avant ñu koy wax yónnent bi boobu Mohamed ibnu Abdoulaye la wa Aminatu boobu mu ngi Màkka mhm. waxagut yàllaa ma yónni ci yéen doon jaayal Khadija mhm. mais bi nga xamee ne nubuwa gi ñëw na ci moom mhm. ca la doog ñëw ne yaa ahlal kitaab yéen samay mbokk taxala wii maa ngi leen di woo illaa kalimatin kon la mu woote moom Muhammad ak moom duñ benn mais su may wax yónent bi dama koy wax manière générale pour nit ñi mën a comprendre mais comme émission la dañuy gën a dox ñu xam lan mooy yónent bi ndax ndax di ma ko laaj c'est man xam naa di ma ko laaj su la waxee yonent bi di nga ma laaj lu yonent bi ah, bien sûr voilà yonent bi nag leer la bokkut ak jëmm ji moo tax ma ne la nit ki ñu dugal ci biir kookoo jaamu yàlla du jëmm ji mm-hmm. parce que tànk bi gëmut yàlla loxo gëmut yàlla mm-hmm. nopp gëmut yàlla bët gëmut yàlla ñooñu gëm yàlla nekkut ci ñoom mm-hmm. parce que duñ jaamu yàlla nit ka ca biir mooy jaamu yàlla moo tax ma ne la yëddu xuloo na fi ko yàlla dugal fii diini laay foofay diine yàlla moo tax yàlla diineem fam fam ne xam wax na ko Mhm. afwaajan ñooñu mbooloo la ñuy doon mbooloo man mooy tànk ak loxo ak nopp loolu mbo yow mbooloo moo àndal la parce que mhm. tànk du loxo mhm. loxo du nopp bët du bët du du gémmiñ kon tur yu daje la mbooloo mu daje la te yaa ngi ànd ak ñoom léegi nag sa mbooloo moomu nag mu ne jan mbooloo moomu fa sab bi dañuy sabbal bi rabbika seen turu borom lan mooy différence bi ak saa yakun yàlla dañ ko war a tuubal te nit mënta tuubal yàlla te xamu ki juddu dama la wax ne la ki judd ca maternité ba nga xam ne andi na bët andi wut gis mhm. andi na nopp andi wut dégg mhm. andi na làmmiñ andi wut wax mhm. andi loxo andi wut jàpp andi tànk andi wut dox andi xol fasu ci bëgg andi xel te xalaatu ci ma ne la ki dikkagut ba looyu mën a fonctionner kookoo moom tuub koy nit tànk ñëwagut ci jëmm ji du jaamu yàlla moo tax ñu ne jaamu yàlla balaa mu koy yéeg faaw mu am 18 ans parce que ka de jaamu yàlla matagut ca moom kooku nag heure bu dikkee ba mat ca moom balaa muy julli balaa muy koor balaa muy natt asaka dafa war a dem tuubi li tax muy tuub nag yàlla wax na ko yàlla lan la wax taxarifoo nii xab la an taabudoo nii xam leen ma lu njëkk kon li njëkk jaamu xam la xam-xam boobu nag ca ngay jaar soo ca jaaree nag xam-xam boobu mooy dem moom ba tuubal la parce que tuub mooy lan mooy dangaa jóge ci lii dem ci lii tuub naa lii lii lee mooy lan maanaam su ma la waxee tuub maanaam xayaan ku dégg séeréer su ma la waxee tuub mooy lii dey jóge naa ci tey bés ni ki tey doolatuma lii lii laa doon mais mbir boo cay bokk dafa am lu tax nga bokk ci diiney islaam yontu yàlla moom it képp ku ma mosaan dikk de dugg ci diiney l'islam mais baatu laa ilaha illa lay seedeloo loolu mooy lan baat boobu laa ilaha mooy dara nekku fi lu dul yàlla te alquran nañu wa maa sayid naa illaa bi ma alim bul seede mukk loo loo xamut mm-hmm. yow nga toog ne ay shahada boobu an shahada boobu mooy mm-hmm. maa ngi seede ne dara nekk fi lu dul yàlla mm-hmm. ñu laaj la yàlla mi nga seede ne moom rek a fi ne mënoo koo wone xamoo fu mu féete nga bëgg fee gis leneen lu dul yàlla tuubaguloo yaa ngi ci bokkaale moo tax kuy tudd laa ilaha illa sëriñ Tuubaa ne képp kuy tudd boobu te leer nga xamoo ko daf la war a parce que yéeféer nga kon képp kuy tudd laa ilaha illa te xamoo secret ba yéeféer nga sëriñ Tuubaa ko wax waaw jërëjëf euh, jëriñ defe naa loolu leer na. Mhm. xam naa ñu dugg si beneen question sax. Mhm. bon bu question bi muy maanaam euh, gis nañ ne yow jëriñ nga si biir axlu badar mhm. euh, mais laajte maanaam lan mooy melo jëriñ koo xam ne ni ma wax na ni moom mooy nekk kuy kuy kuy yar ndongo yi di ko yóbbu si yàlla naka la war a meloo naka la war a mën a comporté woo xam ne dina nekk benn référence. waaw jëriñ de ndimbalu sëriñ bi la rek ndax sëriñ bee njaboote ñëpp waaye nag dafa fekk ne jamono buy dox mbooloo dajee faaw am ku ne ci kanam. te it nekk jëwrin du tee ndongo yàlla yaa leen gën du tee yaa leen ëpp xam-xam du tee leen gën a jub sëriñ sax dina am taalibe bu ko gën a jub sëriñ dina am taalibe bu gën a ragal yàlla parce que cër la. kooku nu muy doon sëriñ sëriñ moom bu yaakaar naa taalibe bu gën a jub waaw sëriñ baatu sëriñ siraajan muniran la rek enseignement la. mais yow boo nekkee sa yow bu nekk sama kilifa mu gën a jub yaa problème. waaw non xam nga lu tax ma la loolu. Mhm. yàlla dafa bind te yemalewut te cër yi bokkuñ jëwrin bi li tax ma wax la loolu mooy ndax ku ku ku wàccewut sa bopp duñ la yéegal maanaam duñ la rek jëwrin nga yaa gën ñëpp waaye nag jëwrin am na ay comportement yu war am parce que ki nga xam ne dañ ko jiital te moom rawu fa manu fa ëpp fa xam-xam cër la rek gu ko yàlla jox cër googu nag wut ne ñi nga nekkal da leen war a woon ne maa leen gën maa leen ëpp xam-xam maa leen ñoo tolloo waaye xanaa ay nag yu ànd képp dana am bu taxaw ci kanam est-ce que daa firi moom du doon baña bañ a doon nag. nag lay doon. jëwrin mooy ki nga xam ne ndigalu sëriñ bi ci moom lay jaar lantinoor la mooy lantinooru sëriñ bi. Mhm. ndigalu sëriñ bi ci moom lay jaar. Mhm. di wàcc ci ndongo yi lii mooy jëwrin. Mhm. waaye firiwul yaa fa gën. firiwul yaa fa raw. firiwul yaa fa man yow daal sëriñ bi suy wàccee ndigalam ci yow koy jaarale. nga nga jiitu ca nag. du rek da lan leen ndongo yi sëñ bi nee na. da nga di wax ne sëñ bi nee na mhm. ba pare nekk ca kanam mhm. wa ilaa nga ne ca kanam ba pare ne leen sëñ bi nee na mhm. lii mooy mooy loolu jëw xam nga jëriñ nga des fois aussi ni la jox maanaam ñoo xam ne ñëw nañ sóobu ngir tarbiya nit boo koy tarbiya maanaam ab ab ab ab malade boo xamul feebaram doo ko faj dëgg la léegi yow ñu ñu ko xam ne ñëw na maanaam jox na sëñ bi sëñ bi jox la ko nga ànd moom ngi tarbiya ko léegi yow fan ngay jaarale ak moom ba ba bir na la yow yow maanaam li tax sëñ bi boole ak moom mat na waaw loolu damay wax ne baatu tarbiya ak tarxiya ak tasfiya kenn ku ne ak nañ koy tarbiya leer gi nag benn leer la parce que ki nga xam ne dafa ñëw yaakaar ci yow ak defaru te bi muy ñëw ci yow ñii am nañ 15 ans ñii am 20 ans ñii am 30 ans ñii am kii doog a ñëw ci yow te jóge ci éducation de base nga xam ne am na yar gu jiitu ci ñoom mu ànd ak yar googu ñëw ci yow di nga defar ko yàkkamti di nga defar ko yàkkamti wut di nga defar ko bëgg lu baax maanaam ku xas ba woote da ngay dajale ñëpp. waaye yow mi nga xam ne yaa jiitu nag il faut nga am ràññee ci ndongo yi nangoo uuf ñëpp nangoo muñal ñëpp waaye kenn ku ne nga xam ni nga koy tarbiya ndax Cheikh Rafal daf ñu jàngal tarbiyatu mooy kii liggéeyloo ko ci coono mooy tax mu defaru kenn ku ne ak nañ koy defaree ndax. tarbiya bi nga xam ne mooy tarbiya jikko nit ki parce que jikko mu ngi wekku ci deret moo tax mag ñi doon sedd cër deret lu am importance la da ngay dégg ñu naan ci deret baa tàng bëri na loo xam ne ci deretu jàmm bi la ne léegi nag pour nga fóot deret boobu ba set ba nga xam ne moom dootul yëgati parce que deret dafa dafa dafa composé dafa dajeeg yëg-yëg moo tax fépp fu deret àggul rek yëg yëg yëg yëg yëg taxaw fa kon deret dafa ànd ak yëg-yëg yëg-yëgu jaam bi mm-hmm. léegi nag ki nga xam ne dafa dikk mm-hmm. léegi yow foog nga fóot deretam boobu waxuma xol ba de deret ba parce que xol ba ñuy tudd deret baa cay jaar mm-hmm. deret boobu nag pour nga fóot ko nit ki faaw nga ñàqloo ko ñàq googu dafay jóge ci deret di puus ci yàq ak yuq di génn coono boobu na nga koy fitnaal day dem ba jikko yu bari maanaam su doon tayal la dindi nga ko su doon rëy na dindi nga ko su doon fen dindi nga ko te lépp fitnal ko ak coono ak di ye ci xam-xam mhm. ak diko yegge ak diko won mhm. lolou moy tax mu ko la mhm. bëgg xam youtube bu ñambi tv bësal notification bi ñu la foofu nga am vidéo yi ñu